nga xam ne daan na ko daan na fay tukkee jógee ci eh, ki nga xam ne moo di njiitu réew mi eh, Bassirou Diomaye Faye bokk na di nga xam ne moom lañu gën a jàpp muy tëggaat sunu système éducatif bu réewum Sénégal loolee nag nekk ab ponk bu am solo ñu bari doon ko xaar waaye itam rawatina ñi nga xam ne ñoo bokk ci société civile bi waral ñu war ko waxtaanee. war ko waxtaanee kenn ku nga xam ne itam yaakaar naa taxawaayam ci wàllum éducation nekk lu ñuy naatable ñu gis ne léeg-léeg mu génnee def ay alerte waaye itam ci lu jëm ci wàllum waxtaan ngir système éducatif gën a ñoŋ am na ci ab taxawaay bu mu caayib di wuyoo ci turu docteur Cheikh mbaw nekk directeur exécutif coalition des organisations en synergie pour la défence de l'éducation publique COSYDEP docteur maa ngi leen nuyu. ñoo ngi lay ziar bu baax di la di ñaan borom bi leeral ñu bu waxtaan wi am njëriñ Sénégal. refondation li nga xam ne mooy suñu système éducatif la ñu fas yéenee waxtaanee waxtaan wi du ma si wéet Cheikh maa ngi lay nuyu. Babacar maa ngi lay fay bu baax di la nuyu di nuy également suñu invité bi ñu am tey. alors tey mu nekk ab ponk bu am solo refondation système éducatif. voilà ni nga ko waxee léegi rek fas yéene tëggaat suñu système éducatif waral ba tey jii ñu am gan fas yéene waxtaan ak moom euh, docteur tey jii gis nga euh, xibaar bi nga xamante ni moo génnee ci conseil des ministre ñu ni dañuy tëggaat lu ñeel wàllum système éducatif bu Sénégal en tant que acteur nga yàgg xeex ci wàllu wi naka nga ak accueillir euh, xibaar bi nga xamante ni moo wadd ni ki démb. waaw damay duma docteur. Mm-hmm. ah donc je le directeur de la. directeur di leen sant bu baax sëñ seex ak sëñ euh, Badara ci waxtaan wi. Mhm. évidemment que ni ñu ko ak accueillir euh, dafa nekk loo xam ni lu baax la. lu mhm. baax la parce que benn bu njëkk bi dañu ñu rafetlu ko mooy boo liiree conseil communiqué conseil des ministres dafa mel ni li ëpp ci li ñuy waxtaanee éducation la. Mhm. te ñun dañoo gëm ni. bu nekkee mbir yitteel na la dafa war a bokk ci li askan bi di waxtaanee donc bu ci kilifa di waxtaanee. Mhm. quel que soit par ailleurs pour le moment les mais je suis ci forme bi le fait simplement que ñu jox ko gëdd bu rëy ba waxtaanee ko conseil ministre ñu loolu neex nañu. Mhm. gis nañ aussi booy xool conseil ministre kan mooy porte parole bi porte parole bi. Mhm. ministre la en charge de l' éducation. mooy formation professionnelle. ensuite dégg nañ aussi régime bu bees bi bi ñu ñëwee li ñu wax ni mooy seen priorité numéro un dañu formation jeunesse. donc capital humain. fànn yëpp boo ko tëggee dafay nekk loo xam ni da nga koy rafetlu. maintenant bu ma jëlee ci mesures yi nga xam ne moo génn ci conseil des ministres bu démb bi. Euh, li ci wax yëpp bu nekkee am na topp boo doon topp ko si def ci at yu weesu. day mel ni li ñu doon laaj tontu nañ ci. Mhm. abri provisoire. Mhm. la question. Euh, comment on appelle de l'eau à l'école mhm. euh, nan la ñuy fexe ba euh, enseignants yi manqué ñu yokk ko mhm. salle de classe yi ñu ko war a remplacer mhm. donc ça veut dire que li plus jëm ci environnement des apprentissages te ñu koy tàmm di teg table bi wax wane nañu ko mais mieux li nga xam ne ñun askan wi yëpp aussi yëkkati nañ ko surtout si jamono ñoom bi ñu def élection mooy nañu fexe ba tëggaat suñu lekkool ba mu nduroog ñun dëppoo ak jamono dëpp dëpp non seulement mu jamono mooy mm-hmm. xëy na numérique mm-hmm. lépp lu jëm ci intelligence artificielle mm-hmm. mais au delà de dëppoo ak jamono mu nduru aussi ak ñun suñuy réalité mooy fondé wu suñuy valeur fondé wu suñuy réalité ba nga xam ne xale bi boo koy jàngal du mel ni benn extraterrestre moo nekk ci kanamam wala di ko jàngaloo xamu ko mais en temps mu nekk système éducatif bu ubbeeku mooy indi numérique parce que dans tous amul benn réew boo xam ne mën na tëj ay frontières am kon te boo xoolee fànn yooyu Euh, te askan bi laaj ko wax làkk yi. Mhm. nuñ ko war a dugalaatee ci biir l'école bi. Mhm. loolu dafay mel ni kon rek ah autorité yi am nañ nopp bu ñu ubbi. Mhm. ci askan wi et donc loolu bokk na ci li nga xam ne xëy na euh, mën nañ mën nañ mën na dalal xel ci fànn boobu. tëggaat bi ci fan la ñu mën a jaar ba tëggaat ko ci lan. waaw c'est-à-dire que d'abord il faut ñu xam exactement li ñu bëgg. xam nga euh, xam nga xam nga boo jëlee. président ak ay premier ministre ak ay ministre ñoom dañuy joxe seen vision politique wax ambition lii lañ bëgg. Mhm. maintenant ñi nga xam ne ñoom ñoo koy. jëmmal c'est les c'est les techniciens. Mhm. ñi koy accompagner ñoom ñoo koy seet lii. Mhm. politique bi bëgg nan lañ ko mën a jëfee. donc li ñu bëgg il fa mu leer est-ce que dañu bëgg def refondation. wala réforme la ñu bëgg a def. wala révision la ñu war a def. wala allègement la ñu bëgg a def. Mhm. xam nga boo boo dundee Covid bi. Mhm. dunoon nga allègement ñu xaw a am lu ñu wàññi. révision nga jël programme bi teg ko. am mhm. yoo xam da nga koy pousse tegal lii. réforme mu am yenn pàcc ci biir yoo xam ne da ngay seet noo koy jëndatee. refondation nga tëggaat pour amat beneen l'école donc il faut d' abord loolu leer. parce que refondation am na temps bu muy laaj. refondation am euh, en tout cas lu gën a complexe la. donc il faut loolu leer en terme de nekkee wolof. day wax tëggaat rek. tëggaat waaw mais bu nekkee technicien bi day xool euh, kilifa gi lan la bëgg. mais li ñu jàpp mooy ambition bi moom mooy li nga xam ne ñun dañ koy dañ ci teg baaram. ambition mooy ñii kat bëgg nañ wane nañ ñi ñoo ngi déglu askan wi. te bëgg nañ ñu transformer l'école bi. maintenant nag il faut justement comme j'ai dit ñu commande bi leer parce que bu ñu war a dem ci refondation du lu ñu mën a def suba ak gannaaw suba. il faut ñu toog waxtaanee ko. Mm-hmm. génnee terme de référence yi. ku si def joxe lim ci xalaat. syndicat yi joxe beneen ONG joxe partenaire et ñu dugg ci askan wi. Mhm. comme ni ñu si assises ba tënk leen li nga xam ne foofu la war a dessiner fan la éducation war a jëm dans tous les cas bu nekkee loolu donc loolu c'est plus complexe. Mhm. bu fekkee ne dañuy def comme jamono corona bi mooy wàññi. lii dugal bi allégé. Mhm. surtout donc il faut d'abord loolu mu leer. ñu xam lu ñu bëgg daal waaw ah, il faut loolu leer. commande bi il Euh, politique bu defee commande am il faut que technicien bi leeral commande am maanaam ne ko bu nekkee refondation nga bëgg lii lay coûter ci xaalis lii lay coûter ci temps lii lay coûter ci investissement humain. Mhm. bu fekkee réforme nga bëgg lii lay jur et cetera mais li ñuy dégg ni moom la askan bi bëgg dafa mel ni askan bi li ñu bëgg mooy refondation. mooy nañ tabaxaat suñu l'école. Mhm. tabaxaat beneen façon l'école. Mhm. tabaxaat l'école boo xam ni. Euh, li ëpp ci li ñuy jël comme référence mooy suñu maam ak mag ñu baax ñi mhm. tabaxaat l'école boo xam ni euh, amul benn réew boo xam ni tey tuddee nañ ko réew bu développé mhm. mu jàng ci làkku jàng boo xam ne dafay jaar suñuy làkk ci at yu njëkk yi mhm. xar lekkool bi nga xam ni euh, duñu jël benn robe ne ñëpp moom la ñuy sol parce que ku nekk ak ni nga toll donc kii daara la bëgg a duggee kii école euh, formelle classique la bëgg a duggee. Mhm. kii formation formation professionnelle moom mooy yoonam. Mhm. donc tabaxaat l'école donc il faut évidemment bu nekkee euh, dégg nañu askan bi dafa mel ni ñoom ci refondation la war a yóbbu. et ba il faut ñu lancer dès à présent processus bi euh, ñetti weeru vacances occasion la pour ñu gën koo xóotal. Mhm. te xëy dem ak moom ba fii ak xëy prochaine dinañ mën a dugg nag ci refondation véritable mais pour le moment je prioritaire yoo xam ne mën nañ ko mën nañ ko dugal. ci loolu Cheikh Mbow ak lu mu ci mënti doon ci wàllum boo fondation euh, wala réforme mais am na lu nga xam ne tey mu ngi tegu ci taable bi te il faut que ñu ut ci ay solution rawatina ñi nga xam ne ñoo di tout tànk yi am na ñu nga xam ne ñu ngi ci système bi am na ñoo xamante ne bokkuñu ci système bi. ñooñu nan ngeen xalaat ni lañu ñu war a mën a def ba ñoom ñëpp ñu mën a jàngi parce que dafa am loo xam ne dañ ko wax mu nekk éducation pour xam nga loolu euh, nguur gi nag moom moo ko war a def parce que nguur gi dama ko doon wax suma xarit yi nekkoon ci nguur gi weesu ñu ne ma li nga ciy wax yaa ngi ci sonal trop chaque jour nga dañu éducation pour tous <laughs> obligation et cetera mais je dis génnee leen ko ci constitution bi boo leen ci génne duma ko ci waxati mm-hmm. suñu réew moo bind ne bépp xale bu am diggante six ak seize ans mooy les dix ans d' obligation scolaire mm-hmm. dafa war a dugg l' école mm-hmm. quelle que école bi moo xam daara la wala école formelle et cetera te kii garantir ce droit à l' éducation nguur gi la tudd état. boo demee France ñoom waxuñu loolu. dañ ne war nga dugg lekkool mais dañ ne responsabilité bi dafa nekk ci diggante waajur bi ak état bi. ça veut dire waa euh, état bi. mën na bañ a yóbbu nit l'école. waajuram garantir ko état bi day surveiller demande vérifier simplement ndax xale bi moo ngi ci ay conditions jàng mais Sénégal. Euh, responsabilité bi moo ngi ci état. Mhm. donc tey question bi bu ko posé waxoon naa ko tey ñoo ngi woon si revue secteur fa lañ jógee. Mhm. Mhm. bu ñu ko posé du yoon en deux mille vingt quatre nga may xale yoo xam ne mënuñoo bind. mënuñoo lire mënuñoo calculer ci français. mënuñu ko ci wolof mënuñu ko ci arab mënuñu ko fenn. loolu défaut bi kon état bi la. Euh, état bi rek mooy responsable parce que moom moo jël engagement bi moom moo jël obligation bi teg ko ci ay mbaggam def ko ci ay texte loi d'orientation. article trois bis. donc tant que moo ngi fa moom moo am responsabilité moom moo a fexe ba créer ba xale bu ne dana am école bu ko jegee ba mu mën a jàngi moom moo war a fexe ba lever obstacle yi war a tax ba xale du mën a dugg l'école mooy soit laago la mu defal ay école yoo xam ne dana fa mën a jànge wala jigéen la ñu war koo téye mu jàkkarlook jàkkaarloog socio euh, pesanteur socioculturel yi wala même bu nekk obstacle d'ordre financier la mooy euh, ñoo ngi laajte ay ay inscription yu cher wala mu génnee ko ci wala ñàkk na jàngalekat moo war a veiller à ce que euh, école bi xale bi am jàngalekat donc tant que moo ngi bind loolu ci ay taxam moom moo gàddu obligation mm-hmm. maintenant l'éducation puisque responsabilité partagée la aussi mm-hmm. ku ne am nga ci rôle mm-hmm. ñu mel ni ñun bis bu état gàddoo responsabilité ñun war na nañoo mën a dugg ci gox goxaat yi dugg ci famille yëfi état rek oui je mais état moom mooy moom mooy mooy pilote bi maanaam boo yoroon oto moom moo chauffeur bi moom moo war a jiitu ba nga xam ne dafay teg condition yëpp maintenant dana am yenn xëy na jafe-jafe yenn réticence yu war a am organisation de la société civile puisque jege nañ communauté yi mën nañoo dugg ci kër yi mm-hmm. pour sensibiliser mën nañoo fexe ba am ay dispositifs